ci seen jataay bi ngeen baaxoo am teñ seqoog yéen muy yow la kan yow la kan nag di jataay boo xam ne dañ ci xamle ak di wone ñi nga xam ne dañoo seen dund dafa ànd ak taarixu jumaay tuuba ci ñoo xam ne liggéey nañ fi ci liggéeyub jumaa ji moo xam liggéeyu doole la ba ci ñi nga xamante ni saytub jumaa ji ci seen loxo la nekk Hmm. loola nag mën ne tudd te tuddoo ñi nga xam ne ñooy imaam yi jumaa ji hmm. tey nag ñu am mbégte toog ci ak kilifa gu mag goo xam ne bu ñu gisee jëmm ji rek daanaka jëratul présenté hmm. muy imaamu ratib bu jumaay Touba. sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso mudabbiril umuuri wa muqaddiril aqdaar subhaanahu huwa allahu alwaahidul qahhaar fii may wax ak yéen. mooy imaam bi nga xam ne. moo mooy jiite julli ajjuma yi. sëñ Mouhamadul Mamoun Bousso moomu lañ fas yéenee séq moom jataay. xëy na di ko présenté sax du ko jar buñ nee sëñ Mouhamadul Mamoun Bousso. moom sëñ Mouhamad Bousso. moom Serigne Mbacke Bousso. moom Serigne Bousso be loolu doy na sëkk présentation. kooku tey moom lañ fas yéenee séq ak jataay bi ñuy wax yow la kan. ngir xamle ma mooy kan. mooy kan ji loolu doy na ci waaye mooy kan ji mooy li mu saytu liñ ko dénk mu nekk ci loxoom loolu lañ bëgg a xam mooy lan hmm. te mooy imaam boobu ma junjoon ne mooy jiite julli ak jumay hmm. diir bu yàgg nag hmm. bu ñu fàttalikoo ba diir bu yàgg boo xamante ni sëñ Mouhamadou Mamoun dina ci ñëw ci kanam ci la nekk ci imaama gi di jiite jumaay tuuba di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu fiq fanam ba mu yàgg a taxawee Euh, liggéey bu am solo boobu nga xam ne. Mm. Euh, kilifa yi ñoo ko ko dénk. Mm. te muy liggéey boo xam ne liggéeyu lislaam la. Mm. kon dañ koy jox rek mu nuyoo bu ko defee ñu tàbbi ci jataay bi. fas yéene itam am ay laaj yoo xamante ni dañ ko ko laaj. kon sëñ Mouhamadou Mamoun ñu ngi lay nuyu ci turu GMT TV ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo leen di nuyu yéen mbooloo mépp ñu Muxaddamatul Xidma euh, leen njëkk a nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñu fi nekkal Serigne Touba di nuyu rakkam yi mbokkal Serigne bi yëpp di nuyu mboole mbokki taalibe yi ak mboolem ñuy saataan bi kon xam naa ci ci itam liñ waroon a njëlbeenoo mooy hmm. xëy na xam nañ ne doomi soxna ju nekk. dana jaar ci njàng alxuraan. ak jàng xam-xam. te macha allah. ñëpp ràññee nañ xam-xam boobu. ak alxuraan ju sell ji. buñ doon wax sëñ Mamoun kon fan la jànge alxuraan ak fan la jànge xam-xam. lu ñu wax. alxuraan de moom sama waajur sëñ Mudu Buso moo ma ko dal. waaw mhm. ma ko dalalee ba mu jox ma sëñ Asan Buso dana san jàngal ma ab diir mu jox ma jëwrinam ju ñuy wax Baara Seck moo ko nekkaloon ci daara di jàngale alquran am na fi kilifa yu baax yu bari yoo xam ne neex ñoo lim sëñ Baara leen jàngal alxuraan boo fa jàngee ab diir mu jëlee ma fa jox ma sëñ Baara ñam Euh, jarbaatu suñ bàkki bu su boobu nga moo ko doon jiital ci jumaa jàkkam ji moom it moo ma àggaleel alquran ja ak ma ma bindantu kaamil ma fexe kaamil jabal ko ko muy bu moomal boppam jëfandikoo ca nam ko soobe mu bind lawaat ma beneen bind ko mu ne dama yët bu dee alquran ji foofu la jaar bu dee xam-xam bi mm, suñu asan bu sooma ko dal jàngal ma ab lu yàgg sax waaye boobu ñuy mm, wax sa xam-xam ma jógee fa nag dem ku ñuy wax sëñ bay bu su nekk fee ci wetu gusaas foofu ñuy yàgg naa fa naa moom lu bare bare ba fa jógee nag ma jóge foofa dem ci sëriñ Ahmed Jaxate moom nga xam ne moo doon ilimaane jàkkay murid ja sax jumaa ja agogul bañ ci julli waaye moo imam ba ci jàkk moom it jàng fa ci moom mm, yàgg naa fa it moom fa jógee jàll Mauritanie ci al imam bu daawul bu sayr moom it nekk naa fa moom bu xaw a yàgg hmm, waaye nag bañ demee ba toll ci am fab diir muy bëgg a yàgg hmm, sama wajur toll ci màgge lool daal di may sant nga mu daal di bàyyi ko foofu ñëw mu ñëwee mun na demal àggale ci asan hmm. ma dellu si waat sëñ Asan mu jàngal ma ay funuun lu mel ni ilmu eh, nujuum ak bayaan ak mantiq xam miraas ak yooyu yëpp ginnaaw bu jógee gànnaar la moom sëñ Asan jàng ok jërëjëf sëñ Mouhamadou Mamoun mm-hmm. eh, xam naa laaj bu njëkk bi mm-hmm. ni ma ko junjee woon mooy yow yaa ngi ci bopp jumaay Touba di jiite ajjuma yi julli ajjuma yi. julli yooyu julli ajjuma yooyu buñ doon euh, natt man at. nga ko njëkk a jiite. man at la ñuy wax. waaw ah, xam naa 1993 de. mas na ko cee tàmbalee. 1993 ci biir weeru yoon nag fàtte naa moom la woon. ci atum 1993. waaw. nga xam ne kan nga fi wuutu. xam nañ ne jumaa ji Cheikh Mamadou Fadal moo doon jiite. waaw waaw ginnaaw bi Cheikh Abdoul Khadri. waaw jiite. Baye Serigne Boussa Ilimane jiite na fi ay julli. waaw ci bu dee yow moom. ak ci ak ci ci teewaayu Serigne mujj gi. ci mujj gi jiite na fi. Uhuh. waaye ci ginnaaw Serigne Abdoul Khadri jiite na fi. Uhuh. moom El Hadj Sëñ Bousso. moom El Hadj Sëñ Bousso. Hmm. Hmm. waaw. ok. ak waaw. waaw bo ginnaaw ba it uh, Abib Mbakke. Hmm. jiite na fi. Serigne Njaañ Bousso jiite na fi. jiite na fi. daal. ginnaaw sëñ Fallou ñoo fi jiite sëñ man Abdul Moutalib Bousso moom it jiite na fi ok jërëjëf mu mel ne ju julli googu itam euh, bu ñu xoolee dafay ànd ak ay xutba ndox julli ak ajjuma ku ne xam na ne julli la goo xam ne dafa ànd ak xutba wuute ak yeneen di julli tisbaar yi ci loolu xutba yooyu noonu ndax xutba yu yooyu waajal la yow ci sa bopp wala xutba yoo xam ne yuñ waajal ba noppi la yoo yoo fi fekk yoo xam ne mag ñi moom lañ daan xutba xutba yi ñu nga xam ne moom bàyyi ko Sëñ Fallu jaar ci Sëñ Abdu Xaadir ak ñi fi jaar ñëpp dama koy xutba bi ma doxee ab diir nag hmm. yoo xam ni sama xalaat bu ñàkk solo mu bind ay xutba jël xutba yooyu nga xam ne mooy euh, atiq dugal ko ci biir andi ko yante yoon yetti weer yu ma andi ko li ci diggante bi nag ma sàkkal ko xutba yi boppam yoo xam ne maa ko doon toppatoo ba def ab téere ma di ko waxtu bu waxtu wa weer bu wa delsi sëñ Sidi Muxtaar woo ma jox ma ndigal ne ma sa xutba yooyu day mën naa dem fépp jox naa ndigal nga tasaare ko ci laa ko doog a mool mm, ba ñi ko yittewoo yëpp di ko am waaye ci ndigal lool lii laa ko teg waaw muy lu am solo nag. ndax bari na ay imaam yoo xam ne dañuy soxla ay xutba. ndax itam. xam nga di di di di di di toog di di di bind ay xutba. dafa yombul. kon bu dee yu mel noonu yoo xam ne dafa bàyyikoo ci barab bu mel nii. ñu mool ko di ko barkeloo. loolu ñu baree bari jàpp naa ne buñ ko xamoon sax. dana dana ñu sawar ci di ko di ko di ko kii. muy lu am solo. waaye xutba yooyu ndax am na ci. yoo xam ne ci defin bi hmm. dëppoo ak xew-xew yi xew ndax xam nañ xew-xew yi am ci at mi hmm. lu mel ne ramadan lu hmm. mel ne aydul euh, euh, adha soñe wala lu mel ne mm, mawlid nabi gàmm gi wala yu mel noonu ndax dinañ ko bàyyi xel ci xutba yooyu waaw yooyu nga xam ne dolli naa ko fukki weer yeeg yaar weer wu ne xew-xew ba ca am xutba yooyu ci biir xew-xew boobe laa koy def weer woo xam ne xew-xew bu ràññ ko bu ñu mën a tudd ma di ca def ay waare ak waadu wa waid wal waad waadun wa irsaadun wa waadun noonu laa ko doxale weer woo xam am na am na mm, munasaba boo xam ne dana ca xew danaa di wax allah loolu am na lépp aju ci boo ci xamee ne bi dikk na rek la ca aju rek danaa ca di bind di ca wax waaw loolu moom ñu bari seetlu nañ ko. Mm-hmm. ñu bari seetlu nañ ne. Mm-hmm. ahdaas yi nga xam ne day am muy am na mm-hmm. ay munasaba diiniya wala ahdaas yoo xam ne day xew ci diine. dañ koy seetlu ci xutba yi. xataa jamono yoo xam ne sax génne azaka day war. dañuy wax ci. waaw euh, dañuy wax ci loolu te loolu it moo tax a jóg xutba. waaw moo tax a jóg xutba macha allah. Euh, mu mel ni itam xutba yooyu. am na solo am solo gi waaye itam buñ ñëwee ci biir julli gi itam. Mm-hmm. seetlu nañ ci benn kii boo xam ne. xëy na mm-hmm. mooy sóortul jumaa mm-hmm. dañ koy jàng ci ajjuma ci waaye dañuy gis ne. bu waxtu jamono ji xawee sedd nga xam ne xëy na taxawaay bi du du du metti Mm-hmm. bu boobaa ngay jàng surtout juma waaye gis nañ ne jamono yi nga mm-hmm. xamante ni jamonoy tàngoor la ak yu mel noonu mm-hmm. danga koy bàyyi xel lu bëree bëri la di jël lu mel ne sabesma ak yu mel noonu surtout la demee dëgg-dëgg wala waaw boo demee Cheikhul Khalil uh, saar yi nga xam ne ko ne mës na ko jàng ci julli ajjum wala julli ayit boole na ci xalateeka boole na ci yu sabbihu ba ci wasam sax defe naa tudd na ko waaw bu ko tudd yaar yooyu moom tudd na leen bu dee ajjuma tudd na ci yu tudd na ci isa jaakal munafiquuna tudd ci sabbihisma tudd ci xalateeg hmm, ñuy seet nag nun bu jamono xatee tàng te xam nañ ne wa fihimul maribu wal musaafiru wa zaminu eh, mata bàyyi xel mag mu lompañ eh, ku feebar ak xeet yooyu moom téere yi tudd nañ ko ne nañ leen di bàyyi xel ci diggante du lii ci woyofal du tee nag matal ponk yëpp nag danga koy matal ba noppi nag def ci woyofal loolu moo waral waxtu yi nga xam ne yi ñu toll bu danañ ci di jàng sabbi ak xalaatee torka muy lu am solo loo xam ne lu bari mën nañ ko ñu ngi koy seetlu waaye xamuñu woon ne dañ koy dëppale ak jamono ji ñi xataayu jamono ak bu féexee ndax bàyyiwaale xel ñu nga ko waxee ñi nga xam ne dañoo lompañ ñi nga xam ne dañoo feebar la jamono ji sax tàng tàngoor woo xam ne mhm. xëy na ku nekk xam ne jumaay Tuuba ni mu bindoo mhm. li fi ñëw ci mbooloo ñëpp xajandoo wuñ ci biir mhm. bari na ñuy nekk ci naaj wi loolu tam moo tax ñu bàyyi xel euh, ci njànginu alxuraan woowu waaye même ci biir njànginu alxuraan woowu tam ñu seetlu ko muy njàngin woo xamante ni wu doy waar la suñ moom xam ne wu xarib la di wu jafee gis njàngin wi yéexul ba ëpp leer na gaaw gaawut ba ëpp leer na njàngin woowu da nga koo da nga koo ixtiraani wala. loolu de xanaa. ñu bari ñu koy bëgg waaye dafa mel ne ba léegi mënaguñ ko. waaw de xam naa daal. loolu liñ ci gën bàyyi xel. fexe ba matal ponk yi. ba sedd xam ne ñu ngi ci naaj wi ak mag ñu néew doole yi ak ñu ñu feebar ñi. ñu wér ñi. ba tax na buñ dee jàng duñ ko diibal ba mu waaye duñ ko gaawalit am na ko mm, masal laaj dégg naa ci sama dëgg ko mas di wax mas di wax ci kilifa yi waa kër Sëñ naa ko tudd sax Sëñ Abdu Xaadir daa ko doon wax ne diw de moom ak julleem day gaaw lool mu ne ma daa bëgg saytaan bañ ci am yoon. est-ce que. ñu ne ko diw doom ak jullam day yeex lool daa bëgg matal ponk yi. est-ce que. <laughs> waaye da nga matal ponk yi. te gaatu. doo di doo eh, boobu diggante leen di jéem a nekk. waaw ah, mooy li eh, diggante boobu ngay wax ci li ñuy jéem nekk. allah. moo tax yow nga far boole ñaari yëpp rek. waaw bëgg boole matal ponk yi. te it seytaane bañ ci amul. waaw macha allah. muy xiraa mumtaa nag. jàngin mm-hmm. bu am solo woo xam ne. Mm-hmm. ni ma ko waxee ñu bëree bëri dañ koy dañ koy yéem. dañ koy yéem alhamdulilah. dañ koy yéem macha allah alhamdulilah. Mm-hmm. muy muy muy nag liggéey boo xamante ni nag bu ànd ak ay jafe-jafe la. jafe-jafe yi mooy xëy na sax duñ ko tuddee jafe-jafe mooy. day ànd ak ak jotadi. ndax daanaka foo foo mënoon a nekk bu alxamis jotee. faaw nga gontu ñëw. ndax mas na laa fekk ci barab bu xat boo xam ne ajjuma dala caa fekk nga xam ne tiisoo nga lool ba def ak njàmbaar jéem a teew. waaw maanaam te njëlbeen ga mhm. dama daa dem ci yitte yi nga xam ne bokki taalib yi dañ koy am. Mhm. Hmm. saa ba may dem ñëw ci sëñ Saliou mu ñaanal ma yoon waxee dama dikk maa ngi takk sax booba man Dakar la woon xum ko la daal di ca dem bi ba wax ko ne ko dama nga ñaan ma ma dem ca ca ñëw ma dem man faa dem waaye fu laa alxames fekk na nga ñëw. macha allah man dama ko waxee moo tax alxames. ñu mu ma xëy dem fenn. Eh, macha allah waaw ah, ah, oh, oh. na nga ñëw. Hmm, hmm. Hmm. Eh, eh, jërëjëf. ci tontu boobu. Ah. day am solo daal. Oh. day am solo. li ngeen di toggool ci ci ci ci ngir liggéey liggéey bi. mel ni ko boroom bëggee. day day day jar nit ñi di ko xam. mooy da di am ay yitte. waaye yitte ji lu mu lu mu farfar. saa yu alxamis jotee. Mm-hmm. dégg nga bu bu yàlla mayee wér rek da ngay daal di dëpp dellu si mm-hmm. ngir ngir ngir ngir waajal ajjuma mm-hmm. muy lu am solo loo xamante ni mën naa bàyyi xel lool waaye itam mu am beneen liggéey boo xamante ne dañ ko cee toftal Cheikh Sidil Muxtaar am na yàlla dolli leeram gërëmam moom itam sa taxawaay ci jumaa ji mu rafet lu ko lool macha allah lu yàgg a rafetlu lool la ndax dafa am mm, ci kilifa yi ñoo xam ne moom dañoo ràññeeku ci jumaa ji moom ci la moom ba tax na mu xalaatoon bi fi sa waajur bu baax bu jógee. sëriñ mm-hmm. sëriñ bu Bousso. Mm-hmm. ci yorinu barab bi. Mm-hmm. mu xalaat ne xalaat la ci barab bi. ne na ko teg ci sa loxo. nga yore ko. muy barabu Cheikhul Khadim bi. barab boobu nag laaj ay taxawaay. ñu bari jàpp mënuñ ñu xam ne rek barab bi mooy dañ ko yor nii rek. waaye dafa am yuñ yuñ yuñ ciy teel ci yorinu barab bi. yooyu boo ñu ko doon tuddal yan ak yan la war. waaw Euh, lu jiitu may am ndigalul dugg fa musuma faa dugg parce que bi ma amee ndigal laa ko laa fa a tàmbalee dugg mm-hmm. euh, loolu it moo xam ne suñ foo nekk woo ko rek mu wuyu ma mm-hmm. dégg ko doon lu mu jëlee ci sëñ Fallu jamonoy màggal gi waaj a ñëw muy soñ nit ñi ci ñëw gi bëggit ku dikk te jëm si jumaa ji nga ànd ko yar mm-hmm. te loo man ci fàggu ci wàllu laab nga def ko ba àgg ci ne seen soror bi rek seen soror bi rek doy na seen soror bi nii seen soror bi rek nee na doy na ah, mm-hmm. tax lun man ci fogoru mm-hmm. ak set ak i uh, ñu di ko jiital ci liggéey bi diggante setal gi ak ci set gi yëpp yaa ñu fay toppatoo ci biir yépp ñu di ko def ci ci laab di ko def ci ay teggin di ko def ci xamuñu sax kan mooy sëñ bi waaye ñu def lu nu man rek ci di ko bàyyi xel waaw ñoo fa nekk rek mm-hmm. ndigal loolu laa leen jox mm-hmm. ba kenn ku fa nekk ku rek da nga bàyyi xel sa bopp bu baax sa digg ak bi mm-hmm. boo fa nekkul di fa def lu ko jar nga dem bu sori tooge ko ndax doomu aadama du mën di ñàkk di kaf du di ñàkk di waxtaan waaye nga dem ba dànd ko sëñ Fallu waxoon na ko bu leen ko ñoxu waaye mm-hmm. naa ko mm-hmm. ñu ne ma noon bu leen ko ñoxu tax na booy toog mm-hmm. fii moom da ngay dem ba dànd ko bu la fa farata taxee duggit boo ko defee ba noppi deret génn fa saas waaw waaw loolu sax seetlu nañ kilifa yu bëree bëri yoo xam ne du du ñu dugg ci barab duñ fa dugg dëgg la dañuy taxaw nële. Mm-hmm. ziar. ndax sàmmonteeg wax jooju. ndax sàmm bu leen ko ñëw bu leen ko ñëw xëy sëñ Fallou Diop. sëñ Fallou ko waxoon de moo ko waxoon. macha mm-hmm. allah. waaw gis nañ ne itam cet geek yëpp moom macha allah gëtt geek. Mm-hmm. taxawaay bi moom macha allah ñëpp lu nañ ko. alhamdulilah ñëpp rafetlu nañ taxawaay bi. ba ci sax ni ñuy xàjjale soxna yi ak góor ñi. nga xam ne wutal nañ leen bunt bu ñuy jaar. mën a ziar génn. góor ñi wutal leen bunt bu ñuy jaar ba mën a ziar génn mm-hmm. ndax sëriñ bi ku bañoon ab jaxasoo mm-hmm. kon wari suta ñëw ba ci kanamam di ko fi defee mm-hmm. ku bañoon itam am kuy def kuy wax ay mbóosóor la kon waree suta ñëw ba ci wetam di ko fi def di ko fa def di ko fa def ni ñu ni ni mu santaane nañ ko ci warmaal ci yonent bi ñu itam noonu la ñu war a ko war ci bañ di yëkkati kàddoog yooyu yooyu yëpp gis nañ ne fi nekk ñi ngi ñi ngi ñu ngi ciy góorgóorlu ñu ngi sàmmante waaw loolu moom bi dikkee xàjjale boobu ci moom la tàmbalee bi mu dikkee te tañ ne di doxal liggéey bi la ne nañ xàjjale góor ñi ak jigéen ñi buñ bokk ay duggukaay buñ bokk ay genn yaakaar naa sax dafa li a wax sax mooy bu fa jigéen bu <laughs> fa jigéen dugg bu fa ko waxoon na ko xam naa dañooy dem dox ab diir nag ndeysaan mm-hmm. yàlla waan ko rek ne ko daal nañ leen wutal bunt boo xam bi ñoom dong nga cay jaar mm-hmm. góor ñi di jaare nii mu doog maye loola waaye dax noonu bu fa jigéen duggati nga xam hmm. am na waxtu woo xam ne dañoo def ab tànt foofu ci fi toll moom ci wàllu gànnaar bi jigéen ñi di fi siyaare def nañ ko ab diir ginnaaw bi nag ñaan ko rek nga xam ne sëñ moom borom yor ba te te te bëgg sëñ Tuubaa gi rek moo andi mu defe defee ko noonu mujj na woyofal ko jaarale ko ci Euh, góor ñi jaar nii jigéen ñi jaar nii moo tax ñu wut ab barrière def ko fee wut ñuñ fa teg ku ku dikk te xam xam nu mu demee boo bu dee jigéen bëggee dugg ñu ne ko jaaral fii bu dee boo bu dikkee bëgg fii muy hmm, hmm. taxawaay boo am solo. xam naa sëñ Mamoun li ñu desee ci waxtu yi daanaka ñu ngi ci cat li. Hmm. xam naa dañuy dellusiwaat ci julli gi rek. Euh, mooy julli iid yi itam. gis nañ ne am na diir boo xam ne. taxawee nga ko muy kore yeeg tabaski yi. waaw waaw nattatuma nu mu toll. waaye am na ab diir boo xamante ni. taxawee nga euh, korite yi ak. tabaski yi laata ñuy jëli sëñ. sëñ muy muy ñëw di ko taxawee. waaw loolu itam looñ ci mën a. loolu yi de moom jamono yi euh, ginnaaw sëñ Abdou Xaadir Cheikh Mouhamadul Mourtada mu doon jiite iid yi yàlla eh, mu may ñëw may andi xutba bi jàng ko bu jullee ba noppi ma jàngal ko xutba bi xam nga ni bindoo woon ci waxin ci waxin nag sar ba am julli yoo xam ne maa ko jiite loolu sax jiitu gi ma ko jiitu sax jiitoon ndax eh, am naa ci ndigal sëñ Saliou ba def ko ay yoon sëñ Murtala doog a am moom naka jege dafa am jafe-jafe wax waaye bu ñu bu bu bu xutba jotee ma xutba bu ma xutba bu nag bu julli wala noonu noonu lañ ko seqi woon ci jamono sëñ jërëjëf sëñ Mamoun Bousso yaakaar naa ne jataay bi am na solo waxtaane nañ ci bari ñi ngi lu baax baax nag ci waxtu bi ndax xam nañ xataay bi ak wér gi liñ ci am jafe na liñ ci am jafe na waaye ñu ngi koy sant yàlla baax alhamdulilah di la ñaanal itam suñu borom yokk taxawaay bi amiin amiin amiin damay la wér musal la ci seen mm, amiin liggéey bu mag bi nga xam ne koy mm. teg ko ci sa loxo nga am ci ndam mm. rëy rëy dañu cee ngërëmu sëriñ amiin amiin kon xam naa dañ lay jox rek nga def sa kàddu muy tàggatooy waaw ñu ciy tàggatooy mooy eh, jiite gi ngi tàmbalee ci ndigalul Cheikh Saliou Mbacké moo fi teg dama digal li may jiite koor mi ngi fi hmm, daana sax julli si hmm, moom ma jox ndigal li fi jaar ginnaawam ñëpp feddali ko ko fi jaar rek feddali nga ko ñu hmm, sant sant ko yàlla bu baax ba ni ma dégg nga waxee ci no ñu rafetloo njàng meeg code ba yeeg xeet yooyu ñu sant ko yàlla sant ko sëñ Saliou mi ma seet ba tànn ma waaw Cheikh Abdoul Khadir yi moo ma yëkkati teg ma ci ay loxoom mhm. daal di may sant liggéey boobu lu jiitu loolu naa ko nekkaloon naa ko ci daara yi eh, di ja di jàngal di jàngale di jàngal di jàngale xam mhm. ginnaaw bi nag la ma yeewee bi ma yeewee nag mu ñëw nekk am diir nekk ak moom mu di ma def loo yenn yitte ba liggéey bi agsi mu foog ko sama loxo incha allahu xeeran waaw jërëjëf waaw jërëjëf mbokk ñu doon topp hmm. jotaay bu am solo bi nga xam ne hmm. ñu ngi ko defee fii ci biir jumaa ji ñun hmm. bar bii ci suñu nga xam ne fi la suñu gan bu tedd gii Cheikh Mamadou Mamoun jot di xutba nit ñi mm-hmm. di jiite julli mm-hmm. bu den ñu amoon ak yéen jataayu mm-hmm. yow la kan yow la kan waxtaane mag ñi nga xam te ñoo ñekk ci jumaa ji te di fi liggéey ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jox ndaje ci beneen jamono insha allah ak beneen gan bu doonoon GMT TV ci weeru juin atum 2021 dëppoo ak